Bienvenue sur Salam Vision. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwata illa billahi alil azim rabbi shrah li sadri waaye seen li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa baadu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bu ñu sant te yàlla ci xéewal yi ñuy defal xéewal yi bare lool te mënuñu ko wàññi waaye sant rek leen ci mën sant ko ànd ak làmmiñ ak xol ndax xéewal yi ne bari na bari goo xam ne moom sax waxal naka boppam ci alquran di wa in taxudu niamatallahi daa tax soxaa waaye ne innal insana la zalumun kafar mel ni xéewal yooyu mënuñu koo daj waaye dañ koy sant rek di julli ci Seydina Muhammad sangu sang yi di ñaan yàlla rek yàlla ñu ko yàlla doon di bëggloo nuyu fa tabarakallahu mboolem xalifa yi ci kaw suuf waaye ñaanal yàlla suñu sëriñ Mawlana Cheikh Tijaan yàlla ñu yàlla doon di cofeel ci moom ñaan yàlla bu mu ñu ommat jëmale ko Cheikh yàlla boole yi mën ma bokk ci njabootu Cheikh Seydil Hadj waaye kii nekk sama wet nii bokk ci njabootu Mame Baye Niass te lépp benn fa séene àgg fu ñu naanee rek mooy xadaratu ilaahi te Cheikh yor li nga xam ni moom mooy paan bi jël kaas bi di séddale ku ne mu jox la nga naan Seydil Hadj Malick waxoon rek wutee naanuwaay taxul kenn bañ a naan ndox mu neex di leen ziyaara di leen balaax di am mbégte nag di dellusiwaat ak yéen ak suñu émission bi di jotaay mag ñi di ko ànd ak nag këru diine yëpp fa tabarakallahu bàyyiwuñu kenn comme niñ ko wax faral di waxee ci àjjuma ji fa tabarakallahu muy dëkk muy bis bu sell tabarakallahu rek ñaan yàlla rek ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim waaye génn seeg alhamdulilahi rabbil alamin di nuyu xalifa général yëpp waaye di nuyu kilifa aada yëpp bàyyiwuñu kenn di ndokkale di sant di ziar weeru tedd bi ñuy jëm di weeru chehu ramadan di ci ñaan yàlla rek lépp lu ci jaamu yàlla yàlla nangul ñu ko waaye lépp luñ ci juum yàlla yàlla jéggal ñu ko bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey ñoo ngi fii ñetti mbaar ànd ak abdou salaam nekk li ñu jot a xam ci moom lu ndaw nekk taalibe maam Ibrahima Niass tabaarakallaahu yàlla dogal na muy ndaw léegi bu gisee nii mu toog lu xale ndaw la te ndaw lu ne day ne ci moom kon loolu moo waral tey yéen ñi nga xam ni yéenay faral di ànd ñun ci réseaux sociaux bi ànd ñun ci YouTube bi ànd ak ñun fa tabarakallahu ñi nga xam ñoo ci diaspora bi ak ñi ne ci senegal yëpp tey ñu indi leen gan gu màgg gan gu tedd gan gu sell di Abdou Salam Brahim ñuy sole rek du bàyyi ko moom mu nuyoo fii si seen émission bu mag bii di jotaayu mag ñi ñu koy defee fii Salam Vision kon salaamaaleykum Abdou Salam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 oustaz Jara ñu ngi lay ziar di mboolem mbokk yi nga àndal rek tey ñëwoon sees si mm. eh, ñu fas yéene waxtaan bi mm. eh, jiitu loolu itam ginnaaw bi ñu la nuyoo ba noppi ñu ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy seetaan sa sit bi mm. nga xam ne mooy taalibe Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ak jullit yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci réew mi ñu ngi ziar ñëpp di yëkkati suñu nuyoo nag di ci jiital ki nga xam ne moom lañ amul lu dul moom monsieur Ibrahima Sène di yëkkati suñu nuyoo di ko teg ci loxoom moom dana jël nuyoo boobu mën ñu koo jàllaleel ba ci suñu xalifa ba nga xam ne moo nekk fële ca Medina Baye mu Cheikh Maay Niass boo ko tuddee nag xam nga tudd nga kilifa yëpp nga xam ne euh, ñu ngi ci tariixa bi ndax Seexu Tijaan rek moo fiy sëriñ mm-hmm. ñu ngi des ñoom ñëpp ay taalibe lañ mm-hmm. waaw kon boo si tuddee benn ta euh, sëriñ boobulee mm-hmm. day mën a wàlli ba ci ñeneen ña bu dee nag ci wàllu am maa ñi nga xam ne ñoo may ñooy ñi ma jege may jiital ci nuyoo bi samay ay mu yóbbaale mbooyam ñi nga xam ne rek ñoo samay mag di ak yu jigéen ci wàllu yaay sama nuyoo ci sama wàllu papa ma koy jébbal sama mag sama taawu papa Samba Thiam ziaral ma waa kër yëpp loolu daal mooy li ñuy nuyoo tam di dégg ndokk moo nuyoo noonu da wax naa ko léegi léegi di ndaw la Abdou Salam gis la nga yëngatu ci wàllu faj balaa may ak si wàllu faj boobu ba ba nga xam Abdou yow fan nga jàngee waaw man Diarra maa ngi jàngee eh, làmbaaj foofu la sama jàng tàmbalee eh, fa laa dalee alquran lu jiitu loolu dugaloon nañ ma école sama maam bu jigéen moo jur sama yaay kooku moom moo ma yar kooku moo wax ne man war maa jàng école parce que man sama papa waxoon na ne duñ ma jàngaloo français français bi tamit xaw ma si woon lu bëri après nag sëriñ ma si génnee yóbbu ma dëkk bu ñuy wax guy làmbaaj daara jooju yaakaar naa nuñ fa ba tey Serigne Dame sëy xam naa murid yi dana la ko sëñ mu sëy ngiy làmbaay Cheikh Babacar Thiergane Cheikh Mor Mamane Mbaye ñooñu ay taalibe lañ yoo xam ne Serigne Touba moo leen seexal ca ca làmbaay ci benn bis yaakaar naa sax ca leen seexalante woon ñoom léegi nag ñoom ñooñu sëñ Moussa yi nguy làmbaay moom mooy seen maam moo sancoon foofu daara daara ji mujjee ci loxo Serigne Dame Seye doomam bu ñuy wax Serigne Sall moom mooy denc sama mag bu jigéen kër googu laa njëkk a jàngee alxuraan dama fa jàngee ba toll ci yaakaar naa euh, wasamaay zaatil buru ma xaw a tawat tawat bu metti bu ñuy wax feebaru ngas ci jamono yooyu ñu jël ma indi ma dakaar ma nekk bu ma tanee may jàngee ci arabu Abdou Diop di fa jàng ba mu yàgg daal ni may jàngee alxuraan ji yeex ci man daanaka moo xam sama yaay ma bëgg di jàng alxuraan rek bëgguma di ci boole yeneen matières yi parce que ni ma gisee ñuy jàng alxuraan noonu laa ko bëgg di jàngee mais bëgguma di jàng yeneen yi nga xam dafay yàq sama jàng ci alxuraan ñu yóbbu ma fii ci daara maam Ousmane Kayre foofu laa jàngee ba famaakaana jawaaba yaakaar naa am problème mu fay sama yaay jigéen la moo ma yor amatu woon lu muy fay waaw hmm. léegi nag bi ma jugee foofu nga xam ne. daanaka dañoo amoon problème mu fay. ma ñëw continuer di jàngal sama fii ci kër gi. sa quatre heures du matin ma jug. di jàngal sama bopp. waaw boobu seerul sax 2000 rek lañ doon fay waaye xam nga jigéen. bu bëggee yor njabootam. te wéeruwul ci kenn day xaw metti. te boobu sama mag yi yëpp ñoom tamit daanaka. yàlla dogal na kenn amagul doole. bu doon ci jamono yii la ma ne la mën naa sax ñu may fayal lu ma neex may jàng. ndax li ñuy def ci man moo ko Mm-hmm. waaye boobu nag doole amul woon mm-hmm. si laa doon jàngalee sam bopp ba kaamil bi su jeexee tey mm-hmm. su ma mënee xëy balaa guddi ma jàng ko yàlla nga ko jaarale si njàngal ko sama bopp lu ma si xamul ma jug dem laaj ustaas yi ñu leeral ma ma dellu si si loolu laa demee ba wàccee waaye nag mokkalu ma ko waaye min naa ko trop waaw léegi fan nga jàngee xam-xam waaw xam-xam tamit bu dee wàllu fiq maa ngi ko jàngee ci ustaas bu ñuy wax Seex Sëy li ma jot a jàng ci fiq moo ma ko jàngal bu dee wàllu asraar mm-hmm. asraar sama baay ku ne xam na ne ñoom seeni maam ñoom ñépp ci asraar lañ leen xam mm-hmm. ba ci moom magam bi mu tuddee taawam bu góor mm-hmm. kooku dafa yoroon daara ci jamono bi daara di jafe nga xam ne njàngum alxuraan lu jafe woon la pour nga gis kaang mu la mën a jàngal kooku moo ko jàngal muy sàmba Thiam moom la tuddee taawam bu góor amaa nag wàllu nga xam ne tey mooy ci ñoom wàllu asraar boobu ñoom seen maam yi ñoo ko doon def moom baayam bu baayam bi ko jur moo doon ñaanal ma coro fay saas ba kon su ma la déggee mhm. wàllu asaaram da nga ko doon waa lu ma doon la waaw kon dañuy wax ne alors ko dasa si di day doonante mhm. kon bu Abdou Salam nekkee di jëngu ci wàllu asaraar mhm. laa xar wa bi maanaa laa ajaba kon bu la fekkee ci dar bi nga toog warul yëm kenn ci ñu la xam xanaa ñu la xamul day yéem. Mhm. waaye ku xam sa askan xam fi nga bokk. Mhm. boo toogee dund awal asaraan day xam ne yow mii kat da ngaa delloo buum ci mboy mboy ga. Mhm. waaw ñu xam ne Abdou yow la ma bi nga nekkee Dakar déglu nañ sa waxtaan yëpp yaa ngi ñuy boobu léegi mais waxagoo ñu benn yoon jaar nga Kaolack te gis ñu ñëw nga nekk taalibe Baye Niass. waaw loolu sax moom bokk na ci li li gën a yéeme ci sama mbir bi ma la mën a leeral. ndax man samay maam ñoom ci li ci li zahir bi li leer ci li nit ñi xam mm. ay murit lañ te mm. sama yaay ak sama papa mm. ndax sama yaay ñoom ay murit lañ ba ci baayam bi ko jur jour bi fi sëñ Fallou bàyyeekoo ci la waxee ne moom ngan gi ñuy ganale seen Fallou du ko du ko fekk fii waaye da koy fekk fële ñu ànd ci ngan ga moom sëñ Fallou raw ko ndax yaakaar naa jour boobu ci la génn àdduna ku ko bëggoon la ñoom dañ koo bëgg sama papa tamit ñoom ay murit lañ waaye nag am na ci benn borom xam-xam. boo xam ne. xam naa ne bu ma tuddee turam rek. Euh, sëñ sëñ Babacar Gueye ca Tëngéej. Mm-hmm. sëriñu asraar la. Mm-hmm. moom xamal na ma ni ma sama nekk tijaan gi hmm. maa ngi ko jëlee ci sama ay maam hmm. yoo xam ne ñu ngi dëkkoon fuuta hmm. ci sama wàllu papa ay tijaan ak ay xaabir yàgg na ci waaye nag jamono ji mujj di ci lañ nekk ay murit waaye man moom damaa delluwaat rek fa sama maam yi nekkoon ci tijaan kon loolu moo la booleeg Mame Baye waaw waaw bi ngay jël tarixa bi li tax nga gis fi ñëpp mais nga dem jël ci Cheikh Ibrahima Sène waaw Ibrahima Sène nag li ma boole ak moom dafa doon loo xam ne lu yàgg ndax xam naa ne boobu man amaguma fukki at wala bu ma ko amee ci lay toll. ci laa doon fi may jàngee bu ñuy burdu ñoom dañuy burdu ci jàkka ji. waaye si Ibrahima Sène da doon burdu ci beneen kër bu nekk foofu. man may dem foofu di fekkee waxtaanam. léegi nag xaal yi nga xam ne moom lay waxtaan lu ci ëpp moom biskitam yi ñu doon séddale ci burdu bi su jeexee man na ko jox. boobu xale laa. boobu sax du ma tijaan. waaye damay gis waxtaan bi buy tudd yàlla day dem ba biskit yi da yor ci loxoom ba tëj ko ba mu mokk. te du xam ne sax moom mbiskit ci tañ na buñ paree rek man maa mujj ñëw daanaka mbu si këram yooyu mën na ko jox mu dem nag ba jëmmi jamono euh, sama xel nekk ci jël wér gi ci jaar ma xool ko gis mu doy ma lool nekk nit koo xam ne wax dëgg yàlla léppam rek ay ngëneel la si laa demee ci moom mu jox mu wér di ci jaar waaw kon ñu jóge si yow jël tarixa bi fi nga toll ak bi nga jëlee tarixa bi fan nga toll waaw tarixa bi moom fekkoon na ma ci bëgg àddina ndax ñu ma xam xam nañ ne man ku bëggoon àdduna laa mm-hmm. lu jiitu nag yow xam nga ne yow bi nga may xam ci may am 14 ans jàpp 16 ans ba 17 ans mm-hmm. xam nga ne ku bëggoon wàllu kurus ak tagg yonent bi laa mm-hmm. waaye itam ginnaaw boobu tamit damaa bëggaat àddina ndax àndandoo yi nit ñi bu surtout nga xam ne doon naa liggéey sax wàllu tey xam naa loolu yoo xam nga ko te teewul fi ma nekk doon fa jàng ñëw ay nit lañ fay ñëw di ma ñaan ñaanloo ki ma yoroon di ma jàngal ñëw mi ngi sëñ Mbaw ñu ngi koy ziar Mbaw ñoo ngi lay ziar baax xanaa loolu moom dama bàyyi ba fen ah. fi ma di ma jàngal ñaw amaguma vingt ans ay nit ñoo ngi ñëw di ma ñaan loo foofu ci biir place bi hmm. moom mi ngi seetaan hmm. euh, kon nga xam ne loolu gënal fadla bi yadillaahi yuti man yasha allah su fadla azim loolu ngëneel boo xam ne boo xam ne la rek hmm. boo ñaanee rek euh, du bett kenn mu ñu mel ni kon ab euh, kii kon wax nga ci wàllu tarixa bi wax nga fu la jële wax nga fu la yóbbu mais tamit yëg nañ ni da ngay faj. da ngaa bokk ci ñi nga xam ni mooy euh, les docteurs traditionnels. Mm-hmm. yow boo ko docteurs yi nga xam ni. boobu bu ñu nee docteur am ñoo xam ne hôpital la ñuy nekk. Mm-hmm. ak ci dispensaire yi. Mm-hmm. mais teewul yow yaa si biir kër gi. mais am nga ay feebar yoo xam ne da ngeen fiy faj. waaw feebar yi ñuy faj moom. Mm. Euh, daanaka mooy li ma la wax rek sama doon la yëngu ci sunguf bu baax. li ñu faj ay feebar. li ci ëpp ci moom boppam ak njabootam suñu feebaree moo leen doon faj ak ñeneen ñoo xam dañuy ñëw mu leen di faj ci sunguf feebaru docteur tamit daan na ko nemmeew daan na dem hôpital ndax bëri na feebar yoo xam ne mënoo koo faj te kooku demul hôpital man lu ci mel ni wàllu ko amul doom du ma tëb dugal ci sama loxo te demul hôpital bu ma xam lu ko dal kanta nag wàllu sunguf ci li ma la wax noonu tamit dama ciy faj ay feebar mhm. xam naa wax naa la ko mhm. waaye bëriwul mhm. lu mel ni mel ni da faj si nga ngay faj am ay client wala waaw ndoxum siti mi nag euh, ñoom yàgguma leen commencé faj moo tax nit ñi daanaka xamaguñ ko carrément waaye garab ndoxum siti yi moom ñu ko jot a jël ku ci nekk boo ko jëlee da indi ñeneen ah. waaw kon daal ñoo ngi ciy gis ñoo ngi ciy gis ñoo ngi ciy gis njëriñ. waaw bu kenn demee am na keneen ku mu indi. Mhm. waaw cité boobu tey mën nañ xam tey noo koy noo koy composé wala wala secret la. waaw garab yi moom. Hmm. man amul lenn loo xamante ne tey ci asraar. Hmm. lu ma yëkkati jox nit man maa koy toog di ko def. man hmm. ñëpp xam nañ ne man sama cours si laa si laay nekk ak sama àlliwa waaye garab yi. dañ ma koy composé. ci defar bi. nga xam ne li ci war a dem yëpp. Mm. ñi ma koy defaral ñoom xam nañu nan lañ koy liggéeyee. Mm. ba nga xam ne siti boo mën a am te loolu na ci mm. nit ku am siti nga yëkkati benn garab muy fajandoo feebaru siti yëpp. ndax siti yi dañoo bëri ay façon. loolu laa bëggoon nga leeral ma ci nag. siti yan façon siti am na siti yoo xamante ne si biir nit deretu nit ki lay nekk. Mm-hmm. nit ki mën nga ko xool mu leer naañ. du du am picc du def dara. fekk moom dafa am siti. Mm-hmm. siti boobu noonu si biir yaram bi lay yàq. di indi ay yax yuy metti yaram buy ruux bu dee góor la sax mën na ko néewloo kàttan wala mu koy indil ay yeneen xeeti feebar yu day waar yoo xam ne maanaam du ko mën a leeral waaye day da koy wóor ne moom wérul fekk siti bi moo nekk ci biir am na boo xam ne ci biti lay nekk day nekk ay picc wala mu nekk ay ër wala nit ki di bu sangoo ba pare di wokkat wala yooyu mu xam ne mu am na siti am koo xam ne moom yooyu yëpp du ko dal mais daa mun am karaw wala mais façon siti yooyu am nañ tur wala amuñu tur waaw yëpp euh, yooyu dinañ am ay tur mag ñi mm. moom dañ ko daan xam siti mm. bu ci nekk mm. dañuy xam fi mu toll nga xam ne dañuy wax ne kii siti bi nangam la tudd ñu ne kii kurabët la am wala lii wala lii mais ñun nag wax dëgg yàlla du ñu mën a xool nit rek gis sitéem ba xam ban feebar maanaam ban la ci façon yi waaye suñ garab bi ñuy joxe bépp façon siti bu mu mën a doon ci sa yaram boo ko jëlee mu dem dafa mel ni bu ma la déggee ko ne joxe waa garab yi mais am keneen koy joxe da ngay partager rek dañ ma koy defaraal rek ah. ba ci bind sax ba ci bind sax damay fay xaalis ne bindal leen ma nangam ak nangam. ñu bindal ma ko mu ñëw. su may faj nit ki ma xam ne kii lii la war a jël. ma defaral ko. bu dee lu ñu war a zikkar la ma toog zikkar ko. waaw da ngaa dem da ngay faj émorite. waaw émorite tamit dañ koy faj. waaw émorite moom moog siti dañu ndax ñoo bokk ndax di di siti bare ay feebar bare bare wala émorite amee ay feebar benn la rek. waaw siti dana indi feebar yu bari. Mm. dana indi waale moom ci jëm boppam. Mm. waaye hémorroïde li man la mën a wax. Mm. moom moo gën a neex a lijjanti siti. waaye moom moo gën a mën a indi ay danger ci yaram ni ki siti. mais hémorroïde nga war nañu xam lu koy joxe. hémorroïde li koy joxe moom daanaka euh, dañ koy dañuy wax ni sax naan toogaay bu yàgg moo koy joxe. Mm-hmm. wala ay lekk yu dëgër moo koy joxe wala yooyu. yooyu dana ko joxe. waaye li ci ëpp doole daal. murit moom daanaka wàllu seytaan dana ci dox. ah waaw. lu ma ko déglu. dana dana dana dox si murit. abo ah bon. waaw man de yàgg naa dégg gars yi di ci wax waaye mosuma dégg dox. da ciy dox bu baax a baax da ciy laxasu. waaw. Ah. daanaka nag. moom lan lay def doomu aadama murit. murit dana jàpp nit ki muy seere. nga xam ne hmm. foofu lay tàmbalee daanaka. Hmm, seere. ak bopp bi di metti hmm. wala sax soo ko waxee dara nii léegi day jóge fii fàtte ko. maanaam su la nee dinaa la woo mën na laa bañ a woo. Emery dana jàpp ni des fois ba tëj ko sax moom moom lu du am xaalis mu mel ni ku umu. Ah. waaw te ñu bari dañu foog ne yi dañ koy faj ci zahir noonu. faju ah. zahir. Mm-hmm. mais Emery dafa laalaale euh, affaire baatin. waxoon naa ko leen ba ñu tàmbalee nee naa ki ñu toogal at bi néew na lool waaye du xale ndaw la te xam-xam newul ci mag newul ci ndaw yàlla dogal na nag muy boromi xam-xam ñu ko fi mag rek moo fi nekk kenn bañu lool waaye yàlla def na ci moom lu mu deful ñu fi ñu ndax tey émission bi rek ci leen daa fëtee leçon yoo xam ne wax dëgg yàlla xaw ma ko woon wax na ci hémorroïde loo xam ne man yëm na ma yaa dégg gars yi di ko wax waaye mosuma xam ne hémorroïde seytaan na ci laxasu wax nañu tamit hémorroïde boobu am nga ci client wala amoo ci client waaw même garabu hémorroïde bi tamit euh, li muy dem bariwul daanaka ñi ma xam hmm. ñoo koy jot a jël mais li muy génn parce que ñu bëri man ci wàllu ñaan ci soxla rek lañ ma xamee woon. Hmm. ñu bari tey euh, daanaka mais nag li ma xam ci wàllu ñaan ci soxla xam nañ ne man su ma joxee garab rek day mais waxuma mais lan moo bi nga xamee ni yow. Mhm. siti ay nga ci macha allah yàlla yàlla fa cat. émorite mhm. hakaza. Mhm. Ah, may yàlla may na la ci ndam. la moo tax jéemoo fexe def benn lu mel ni tableau wala genre publicité. teg ko sa buntu kër. pour bu nit ñi rombee xam ne kii kat li muy def nii mën na ko. waa xam nga lu ci bari tey. man tey suñu émission bi man ak yow sax mm-hmm. li muy yow la mm-hmm. nga xam ne yow danga maa jege mm-hmm. moo tax sax ma nangu loolu waaye fi mu toll nii euh, toll gu ma woon foo xam ne damay nangu jël tableau teg ko si buntu kër gi wala yu demee noonu parce que am na ci woote yoo xam ne wala dem ci réseaux parce que mel kon mënu même bu na ci woote yoo xam ne nit ñi ni ñëwee après yow doo mën a faj seen aajo ni mu waree ah. waaw loolu. kon daal benn bi yow bu la déggee moo la gënal junni junni. waaw loolu moom moo ma gënal wax dëgg waaye nag ñaan bul sa ba ñaan bul nangoo sonal borom de. Mhm, mhm, mhm. Hmm? wér na waaw wér na. waaw ah, kon baax wax nañ tam da ngay faj feebar mooy ki nga xam ne waaw wala ku jég saar te jég saar yomb. waaw ni ko waxee yomb dem ba mënatul mënatul si jabaram dara. waaw boobu moom kooku mën nañ ko delloo si waaye boo ah. ko judduwaalewul daal moom. Hmm. bu mu ci mën a doon danañ ko faj bu soobee yàlla bu soobee rob waaw télé bu mu mën a doon ci kàttanu yàlla danañ ko fay. Hmm. waaw. moo xam kuy gaaw rek mooy suñu problème. moo xam koo xam ne day gaaw a daanu. waaw moo xam koo xam ne dafa jég saa yëgatul boppam. yëpp mais yooyu lan lan moo koy def au lan moo koy joxe. liggéey la wala am na lekk yooyu lekk yoo xam ne moo lay yóbbu ci loolu wala ay yenn fay yoo xam ne moo lan la au juste. xam nga li ci njëkk mooy nit ki moom li muy lekk def koy feebar. Hmm. waaw li ngay lekk moo lay wéral moo lay feebaral. Hmm. Euh, tey suukar su bëri. Hmm. suukar baax na ci nit. Hmm. waaye am na fu muy toll si nit ki. Hmm. mën na ko indil feebar waaye doon xale nag xale buy jël suukar néew na lu ko. suukar di indil tële. Euh, bu fekk en kantaan nag ñi nga xam ne. léegi xale yi shayatin yi dañuy dugg ak gone yi. ñuy ñuy fowee seen bopp. daanaka loolu nag bokk na si li gën a indi tali léegi. te nit ñi duñ ko wax. waaye loolu bokk na si. ak tamit yenn façon yi nga xam ne tey. ñu ngi koy defalee xale yi lu mel ni ay façons couche ay yoo xam ne mm-hmm. daanaka dafay dafay dafay jàpp awra nit ki ba nga xam ne mën na si yàq dara si ndawam kon couche baaxul du yëpp daal. Ah. couche moom mën naa bañ a mën naa bañ a am problème. Ah. waaye du façon couche yëpp parce que am na couche noo koy takkee. Hmm. nga xam ne tey xale bi yow xooloo awraam nan la tëddee bi ngay takk ak hmm. yooyu noonu. Hmm. loolu mën na dem ba teel a bàyyiloo ay siddiitam bu demee ba nekk mag tamit mu indi ko ay jafe-jafe. waaw ñu bari nag duñu ñu leeral yooyu. waaye ah. tële yu bari. nit kaa nga ko amee si ndawam. mais wala rab teg ko wala jabaram ci boppam am rab. waaw wala koo xam tam xalima la. waaw wala ñu liggéey ko. bu dee liggéey moom loolu du ah bon waaw. mais am na gaa yi am na ñoo xam seen loxo dafa saf de am. waaw moom kuy kuy dox ci àddina bi moom di wax kenn mënu maa liggéey moom da ngay nax sa bopp rek. Ah. waaye tamit kuy liggéey di ne sama liggéey bi kenn mënu koo dindi. Ah. da ngay nax sa bopp rek. ah, ah ñoo xam ne bu ñu xasee ba matt du dagg de. day dagg. ah danañ bàyyi. ah kon baax incha allahu taala waaw wax nañu tamit da ngay faj li nga xam mooy hernie. waaw hernie li xam lan mooy hernie dañuy tudd dañuy dégg rek. waaw mais ba tey ñun xamuñu lan mooy hernie. hernie jumbax la Euh, moom dana topp nit si bi nga xamante ni xuccam bi. Mm. bi mu nekkee xale. Mm. ñu koy dindi wala dara. Mm. mu jaaree si amee feebaru hernie. hernie tamit man gis naa koo xam ne turandoom da koo amoon moom mu am ko. xam euh, benn feebar la boo xam ne si biiru nit ki lay nekk day féete si côté jumbax man gis naa koo xam ne euh, dafa turandoom da ko amoon moom mu am ko kon. Euh, njort naa ne hernie tamit dinañ ko doon. Mm-hmm. waaye nekkul loo xamante ne lu wér la ci man. Mm-hmm. waaye daal xam naa ne wàllu wàllu xucc moom ni koy dindee. Mm-hmm. Euh, loolu mën na indi nit hernie. hernie nag moom dañ koy faj tamit. ba mu wér waaw bi iznillah. kon tabaarakallaahu mu mel ni kon yooyu liñ jot jot dégg ñun ni yooyu da koy faj. amul yeneen yoo ci dolli wala. waaw xanaa xanaa mbiru asraar yi rek. waaw asraar moom comme daf wax na sànq daf la dikkee. te nit moom lu li ngay yëg di wax bokk la ngay jàng di wax. Mm-hmm. comme yow yaa ko yëg di wax. Mm-hmm. asaraar euh, noo ci tàmbalee ak foo ci toll. waaw ah, asaraar mooy li ma la wax. bi may bind téere asaraar bu wax mooy secret. Mm-hmm. bu demee ba bu bu demee ba génn na ah? Ah. bi may bind téere di ko jox nit mu takk wala mu sangoo boobu man amaguma fukki at man loolu moom man sàkk fii zaalika fal yu jar boo gëstoo ci samay mbokk da nga xam ne man ku teel di bind ay téere di ko joxe la voilà da nga ne wax léegi léegi nga ni looy sikki sàkk da ngay essayé exactement moom nga wax léegi léegi waaw kon yow da nga ko doon sikki sàkk maanaam koo xam ne day weddi loolu ah. sama sama teel a def asraar mhm. ngay essayé nga jël dara loo xamante ne mu ngi bàyyeekoo ci sama loxo bi bàyyeekoo ci mbiri asraar kon yéen a ko dégg yéen ñi seetaan euh, seen émission bi jotaay mag fii ci Salam Vision ngeen ànd ko Abdou Salam di taalibe Maam Ibrahima waaye buum bi daw ba ci Maam Cheikhul Tijani di ko ñaanal ndaw la nag dégg ngeen ko lu mu wax asra da ko doon mhm. nee na bu mu amee fukki at la commencé di bind mhm. euh, yan yan ban yow da ci wàllu rawxaan ngay demee wala ci wàllu rab wala ci wàllu jinne ndax yëpp dafa am dafa am rawxaan mhm. am jinne am rab Mhm. dafa am zulmaaniya mhm. am nuraaniya mhm. yow ñu bëgg xam ci ci ñaaree ba nga ci dox wala ci ñaaree bu ngay dox waaw zulmaani yu moom man dama ko bañ moo tax tamit loolu bokk na ci li ma gën a sonal parce que man euh, wax naa la ne la lasraar lu ma fekk samay maam di ko def ma jël ko la kon loolu soo ko jëlee yi nekkoon foofu yëpp day ñëw ci yow wàllu zulmaan bi dana ñëw wàllu nuraan yi dana ñëw zulmaan yi nag bañ ko daanaka dafa bokk ci ma gën a sonal parce que yu mel noonu daf may dikkal euh, te bëgguma ko waaye teewul mi ngi fi nag xam-xamu zulmaan yi moom am na fi waaye duma ko laal man ci nuuraan yi laay def sama nga gis jinne di la dikkal waaw des fois yu mel noonu danay faral di am di la di la seet waaw di waxtaan ak yow euh, man nag du ma leen gis du ma gis jinne tamit waa waaye xam naa ni daal euh, waaw wàllu jinne moom wax dëgg yàlla mm-hmm. Euh, nekk na ki suñu wet moom. waaye nag duñ ko jëfandikoo boo nee boo nee ngi may dikkal. Mhm. dina dikkal kay da nga koy da nga koy xam ni kii mi ngi lay dikkal ab saam. waaw du sax lu ñu ah. def tamakun la. Ah. xanaa ñoo ko jëfandikoowul waaye am na fi am na waaw waaw. kon nag bu ni du ma ko gis. xanaa mm. kay ma wax ak ñoom. waaye mm. li ñu bëgg ci loolu laa doon gis du ma wax ak ñoom. waaye dan ma jege ba ma xam ne ñu ngi fi waaw jinne moom wax dëgg yàlla koo xam ne mu ngi koy gis man weddi lu ma la sa gis googu noonu waaye man Abdou salaam sama bët yii hmm. gisagul jinne te ñaanuma yàlla di leen gis hmm. nekk gi ñu nekk man sax neexuma bu ma sañoon sax yooyu noonu dépassé wu ma ak sama borom hmm. waaw kon yow ci wàllu wax rawaxante ngay dox waaw man daal ci wàllu xaatim ak bind ci alquran man ci loolu laay dox ak jël sunguf joxe mais damay dégg gaa yi dañuy tere bind de danaan takk baaxu waaw xam nga <laughs> nit ki moom. Ah, léegi yow faaw indi da leen waaw waaw xam nga ñoom takk baaxul. Ah. day mel ni gëmoo yàlla. Mhm. yow loo wax ci loolu yow. waaw xam nga tey. waaw ah. jara Diarra. Eh, yow gëm la. Mhm. weesuwul. Mhm. Eh, nga bàyyi woon fii. sa benn eh, yaakaar naa sa yére. am ñoo xam ne yow dañ laa ragal. yow kenn ñemewu la foo taxaw kenn ñemewu la fa. nga bàyyi ba ay bandi ñëw fii. ma génnee yére boo xam ne yow yaa ko moom ci sa yére yi la bokk ma tàllal ko ba bandi yi gis ko ma ne gis ngeen lii tamit xam nga lii mbubu jar la dañ leen a yem rek jaraa ngi si biir kër gi bandi yooyu noonu dëpp waaw léegi ndax yow man loolu ma def si yow dafa araam wala araamu ah. alquran mm-hmm. ashiyaun min ashiya illah alxuraan bagage la ci bagage yàlla yi ah. alxuraan lépp lu nekk si àdduna bi ah. bi def mu des alxuraan loolu hmm. ñu koy ñi ciy sikki sàkk nañ dem ci risaala maa faral naa fi kitaab yi shay'in ah. te ñoom kon xam nga alxuraan bu fekkente ni nit ki da koo hmm. bëgg a jël di araamal takk gi ak sang hmm. nañu nañu wax leneen loo xam ne eh, day kii waaye yow li nit ñi di jariñoo nga xam ne am na ñoo xam ne mënuñoo julli normal mënuñoo saraxe normal mënuñoo liggéey mm. luñ dugg problème buñ am mu yàqu mm. ñii mënuñoo jariñoo seen soxna dañuy mm. takk soxna soxna si walbatiku di ñaan baat ñii di am ay problème ñii di naan sàngara ñii di sàcc kenn ku nekk ngay def li ngay def te yow loolu seytaane rek moo la jàpp nit ñi di ko dindi ci alxuraan nga ne leen alxuraan dafa araam kon ñoom léegi lan lañ bëgg mu dimbali nit ñi ah. luy dimbali nit ñi nañ bàyyi nit ñi ñu jëfandikoo alxuraan yi yàlla bu fekkente ne nag da ngay daawa wala ngay woote ci lu mm. baax da ngay jéem a woo nit ñi ci lu leen dimbali mais bul fekk ñiy dimbali nit ñi mm-hmm. di leen génn ci seeni problème mm-hmm. nga leen di wax naan leen lii ngeen def dafa xaraam waaw mm-hmm. tabarakallahu émission bi neex na waaye li ñu cër ci waxtu man na ndax eh, liggéey jàmm lañu yor lépp loo si nekk dafa am temps bëggoon nañ mu gën a yaatu waaye bi may première partie bi mm-hmm. incha allah bi daan fi ñëw dafa yow deuxième partie mm-hmm. nga dugg ñu ci wàllu asaraan bu baax a baax a baax a baax a baax a baax mm-hmm. ñu bàyyi la rek nga def sa dernière kàddu nuyoo woo ñi ngay woo ñaan yàlla rek après ñu yëg ci jotaay bi waa xam naa pour beneen yoon ñu bari bàyyi ci xel ñiy seetaan sa émission bi mm. bëgg naa ñu def émission boo xam ne mm. mën nañu teg tableau mm. ñu bind ci wàllu xaatim parce que mm. léeg-léeg nga gis koo xam ne dalay wax ne la man damaa mën xaatim mm. eh, defar tableau mm. bind xaatim yooyu mais loolu sax xaatim mën nga ko mën sax te yow doo nekk ñaankat doo nekk sëriñu asraar ngay ñaanal nit ñi seen aajo du faju mais xaatim dafa am nuñ koy tracé dafa am koy tracé même loolu yëpp mën nga ko mën mais dégg naa am fa am ab buntu yoo xam ne waroo tëb war a dugg ci bunt lo aajo bu nekk ak bunt bi ñu koy duggee am na musallas yoo xam ne rek benn façon duggin bi mën nga ci faj aajo yëpp waaw lu mel masalasu Ghazali masalasu Wilaay masalasu Kunti masalasu Tijaani boobu laa bëggoon ñu waxtaanee sax waaw wa axun waaye loolu ah. danañ ci danañ ci waaye li man mën a wax daal mhm. mooy loolu yëpp nit ki mën na ko mën te mhm. fekk du ñaanal nit mu aajoom faju mhm. loolu lu waral loolu parce que euh, asraar mooy li ma la wax sànq wàllu xaati mbiru góor yàlla la dafa ànd ak ijaaba ku jaamu yàlla ba tollu si yenn niveau yi moo ci natt boppam mag ñi dañ ci daan natt seen bopp jàng ba maanaam jaamu yàlla ba toll fenn fii di natt seen doole. Mhm. moo daan tax ñuy bind xaatim. Mhm. moo waral léegi nga gis koo xam day taxaw ci tableau bind xaatim wax ci ilmu nujum lu mhm. boo demee seeti ko jox ko sa alal doo gis sa sa mbir du faju parce que ijaaba moo fay des. maa ngi lay gërëm jara di la ñaanal yow it. sa liggéey bi yàlla na yàlla barkeel ko ndax yow doomu soxna nga bu la neexoon tey da ngay yem ci sa xam-xam di jàngale ndax fu nekk lañ lay soxla ci àdduna bi nga fay dem di jàngale waaye teewul yaa ngi wëlbatiku di continuer di daan sa doole di jàngale di def émission yu mel nii euh, tey lii comme ni ma la ko waxee nga xam ne yow dama laa ñeme moo tax ma mën a seq ak yow lu nii waaye njort naa ne euh, ku su dul su dul sa sit bii dina néew ñu may gis may toog ci kii daa daal la woo nag ndax di nga toll fu nga xam ne àddina ñëpp lay soxla incha allah ku ñëpp soxla moo ko tax sa bopp wallaay ndeysaan waaw ku mhm. seen émission bii di jotaay ma ngi ànd ak di ko ñaanal yàlla guddal fanam yal na sàmm ko yal na yàlla wata ko yéen ko déggandoo nag wa tabarakallah ñu bàyyi ci xel euh, nekk fii ci Salam Vision yéen ñi nga xam ne ci diaspora bi nekk Sénégal ak fépp fu mën a doon ñu ànd ak tey nag Ousmane mi nga xam ne moo réalisé émission bi di ko ñaanal yal na yàlla sàmm ko. dañu daaneel mukk di nuyu DG Serigne Sam Seck. di ko ñaanal ak mboolem koo xam ne yaa ngi liggéey ci kër gi. di la ñaanal di ñaanal suñu bopp yàlla bi borom jàmm ku mu jàmmal nga jàmm yàlla ñaari jàmm. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.